daaw oto di daw te bu xeexee ñëwee mën nga yebal ma dem xeex. alors 15 jours des na ci campagne bi naka la ko war a doxalee ba lépp am ci jàmm pour yow. waaw xanaa nañuy jàkkaarloog Sénégalais di leen wax lay dëgg damaa nekk ci période campagne rek lu ma neex laay wax déedéet maa bëgg ñu roy ci président Macky Sall promesse bu mas a jox campagne rek bu faloo appliqué na ko lu mu la mas a wax buy campagne dangay ngay xool. ndax menn moom laa mas a gis nit ku nekk ci Sénégal di politicien mosoo am waar le président Macky Sall mosoo am waar parce que la la ko dimbal mooy dafa fonk kàddoom mais bu ma gisee un premier ministre di tête de liste Ousmane mu taxaw ne fekk nañ ci responsable yi fi nekkoon kenn ci kontam lu tollu ci mille milliards xam nga lan mooy mille milliards mm-hmm. kenn xamu nu mu toll te banques yi ci Sénégal yépp mu ngi toll ci dix-neuf banques dix neuf banques yi boo boolee la ci nekk lépp lépp matul mille milliards. ah est-ce que fii lañ ko gis. non euh, man damay tukki dem naa fa bari ci àdduna bi vingt mille euros képp boo ko bëggoon jugal ko jugal ci banque daan la xool yow fan nga jëlee vingt mille euros yi ak fan ak fan lay jaar wëlbati ko waat nga ne gis nañ ko ba récupéré ko kon yaakaar naa ku mën a récupérer mille milliards nooy soxlaa quatre cent cinquante milliards euros bon. lépp nañu barki démb 181 milliards. barki démb ñu lebaat 180. 181 milliards 181 milliards. mais ku yor 1000 milliards nooy lebe 181 milliards li ma ci gën a ba gën ma cee métti nag ñu jàppoon ko waxi politique ministre am génn Almaarik Ndiaye moom it di gën a dëggal wax ci moo tax nañu respecté peuple sénégalais tey ay nit boo leen dee jàkkaarloo di leen wax lu leen neex ñu lay tàcc di la dugg boo demee ba àgg wax leen lay dëgg ak la mën a nekk. mais tey da ngaa dégg ci campagne bi ay euh, promesse yoo xam ne mënuñu ko tenir. waaw ah, bari na ci parce que tey bu ma dégloo Ousmane ko taxaw xam nga loolu lu gën a garaaw loolu amul fekk naa ci benn compte nit 1000 milliards te génne woo chiffre joxe woo. numéro Alassane Sall demandé naa ce que ñu ubbi ci enquête peut-être. bu amee dinañu. wallaahi alxasim duñ ko ci mas a ubbi wallaahi alxasim laa la wax de wallaahi alxasim duñ ko ci mas a ubbi. parce amul. xel xalaat lay jëriñ mais moo ñu mën a wan ndax am na. soon Sonko waxut ak yow waxut ak man soxna si maa ngi nii jàkkaarloog man xam nga ne bu baax a baax a baax ban ko waxee tamit waxi caaxaan la waaye lii dara amu ci ñi muy waxal xam na ko bu baax a baax a baax. ñi nga xam ne seen bopp yi dara nekku ci. ñi muy waxal xam na ko moom li mu bëgg. mi koy am yàq dara opposition bi rek ko ci loolu la bëgg tu loolu lépp ay tuuma la taxaw jàkkaarloog ay gor yu set wecc di leen tuumaal. parfois damay toog ba mu yàgg damay ki wax ak sama benn xarit tey la comme yow mu ne ma man de débat ci Ousmane Sonko dama koy far bàyyi daal parce que yaakaar naa débat bu doon tax mu changé dana bàyyi promesse yi muy wax ak di ko diggee mais mënuñu ci dara parce que lu mu tàmm la ku koy def ba excipoir di ko def di réussir di ko def ba doon député jóge fa di ko def ba doon maire yi jóge fa di ko def ba doon président de la république kooku ay la yéwén mënuloo koo bàyyi ana 94 milliards ana 600 milliards yi ñu dégg diggoon Aline Aline Sall mu mujj. mujjul fenn ana 94 milliards yi mujjul fenn. Mamour Diallo loolu wax ba mu nekk mu ne mooy Amadou Ba. nee nañ dinañ ci ubbi enquête. mais dama ne la yow soxna si <laughs> loolu dina ubbi enquête ko fii ba deux mille deux mille vingt neuf sax doo gis ñu ubbi ci enquête parce que du lu am nit nite dafa am loo xam ne tey ay wax la ci wax la yem. Mm-hmm. mais nag waxut ak man waxut ak yow ndax barki dem fi may wiidee sama oto rek damaa dajeeg benn maire ñu ne ñi ñoo tax. daana dégg nga li mu wax ñii ñoo tax ñu mënatuñoo am dara loolu la bëgg li mu bëgg mi ngi koy am parce que tey kay wax loolu mun mënumaa dugal ci bopp bi loo xam ne tey mën naa weddi waxi Ousmane Sonko. xanaa kon yow foofu itam ngay dugal li mu waxoon ci chiffre finance publique yi mu ne woon dañ ko. mais loolu lépp fa laa koy dugal parce que ba léegi nii léeboon léppeen la gën ngaa dégg ñu waxati ci sax. ah parce que cour des comptes la ñuy xaar mu certifié. non mais ay cour des comptes. mais FMI ak banque mondiale boo leen dégloo dafay mel ni. reconnaître nañ la Sénégal non non non non man kooku fi ma ko doon xaaree sax du foofu. parce que dafa am loo xam ne secret d'État la waroo génn publiquement di ko wax dafa war a sóoraal lu bare bari waaye moom li ko intéressé mooy campagne Sonko li ko gën a dundal ci àdduna li ko li ko gën a neex mooy stade bi fees wala bayal bi fees mu jàkkaarloog senes bi di wax mais xoolal senes bi ko wër. moo tax Sénégal war nañu jëlaat seen doom yi di leen jàngal ban xam jàng dafa baax de nit ki bu jàngul rek neex a nax moo tax ku naw la président Macky Sall la jomm naa wax leen li jomm naa def leen li 2012 ba 2024 musta wax lu ñu koy yedd waaye musta wax lu ñuy toog di ko waxtaanee loolu dafa am solo kàddu dafa am solo hmm. nit sa kàddu na la war gënal sa lépp waaw kàddu am na solo alors ba tey ci campagne électorale bi ak ni yëf yi demee yaa ngi wax sànq Ousmane Sonko mbooloo mu ko dar bokk na ci li ko gën a neex mais boo gisee mbooloo mi tey euh, ni ñu mel ba tey ci kaw Ousmane Sonko ci kanamam ci ginnaawam ak lu mën a xew ak lu ngeen mën a wax dëkk bi doxul dëgër na est-ce que doo jàpp ne ba léegi électorat bee ngeeg moom. ndax ah, loolu moom mën naa nekk li koy topp ci nit. xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga sénégalais. ñu ci ëpp duñu wootee ngir bilan Sénégal di wootee ngir bilan Sénégal lu bees la bëgg boo beesee mën nañ ci yow lu nekk euh, dafa xalaat dañ fi doon seetaan benn film film bi Veyde la xaw ma mu jekk-jekk ne cëpp Sénégal keroog yoof ba aéroport amoo foo jaar ndax mbooloo mu bari moom daf koo jaral sax mu bëgg ba daggal pàppam bi ak yaayam ne ko lii xalaatuma koon ci réewum Sénégal ñu jóge fa seexu sarifu ñëw ñu koy dugal ci stade yi keroog li ñoo dul Demba Diop bi ba fees dal naxi nee na ma ciy waxtaan ak sama xarit benn ki démb mu ne ma sénégalais na mu lay yëkkatee la lay wàcc muy Ilaas Diouf dañoo toog di ci waxtaan mu ne may Diouf say jamono mu ne ma Habib yàlla nag ma ne ko nag am na lu la yàlla dimbalee parce que bi nga demee ba ñàkk popularité bi ngor gi nga ci àndal daal moo jafe lool mu ne ma damaa xam ñan ñooy sénégalais. ndax bi ñu may yëkkatee chaque jour maa ngi sóoraale wàcce gi moo tax Ousmane Sonko nag foofu la toll waaye moom xamu ko parce que boo ko gisee ni muy doxee ak ni muy waxee lépp naagu moo ko ci dugal mais dama ko bëgg a xamal ne ko euh, mbooloo mu bari di la tàccu euh, naagu commencé dugg ci moom lii mbooloo mi lu ko ëpp doon nañ topp le président Macky Sall. Hmm. topp nañ fi amadu Ba élection ndax tax na mu gagné période bi nag période am la. parce que mu ngi soog a jóge dugg ci élec génn ci élection six mois moo ci topp ñi nga xam ne yàlla def na ne gëmuñu dara topp nañ ko muy ñi nekkoon ci le président Macky Sall loolu nag moo tax xam naa ni moom it mu ànd ak ceeg ay loo xam ne finalement doo ko mën a wax sax. ñi ko fekk ji peut-être dañoo gis ne moom euh, yoon bi mu jël baax na projet bi mun na génnee Sénégal ci jafe-jafe yi mu nekk. waaw xam nga ñi ko fekk si nag man. te loolu yéen mënoo leen. ci peut-être ngàññi kenn parce que transhumance moom bëgguma woon a tudd seen tur sax. transhumance moom. non fi may waxee mooy bëgguma woon tudd seen tur sax. xam nga ne président Macky Sall li mu toogee parce que toog na cinq ans transhumé soo a dugg ci ci état bi te li ma doon xaar ci Ousmane Sonko dama ko déglu 2017 mu daan ne euh, parti Pastef. ñi nekk ci nguur gi moom. ku ci wàcc moom jëlul ngay jaar parti Pastef ndax loolu ñun bokkuñu ci li nga xam ne moom la ñu gëm. lu yàggul dara ma gisaat ko mu toog ne ngir yàlla kenn ku nekk. 2024 mhm. fam la mekkoon fekkoon toog fa. moom dëgg la. ma gis koo xam ne dafa toog palais de la république askan wépp di ko seetaan muy maam Boye Diao heure bu ma xëyee rek dinaa seetaan image boobu ndax sama yaram day daw mu ne le président Macky Sall defal troisième mandat ku d'accordut ci dynamique bi ñu nekk génnal saal bi daana ana mairie Kolda yi jug wax ba wax ji xolam président Macky Sall daf ko xool di muuñ parce que xam na ne maam booy gëmul dara muuñul président gi loolu la woon tey euh, Ousmane Sonko toog yow xaaroo sax ñu woole yow yaa demal sa bopp ne ñëw naa sans condition lan moo waral ñëw gi dangaa def lu bëggul kenn wax ko wala leneen moo xew nga xool galaba fi président jaar ak moom amul lu mu ko defal ci àddina amul fu mu jaar ak moom ci àddina Mame Boye jaar pendant cinq ans yoo xam ne président Macky Sall nommé na ko ba mi mu xëy bi mu solal boppam président mosut def décret daa xool Malick Sall démarche intellectuelle bi nekk ci moom dafa am loo xam ne àdduna daf ko jëru nit dafa war a gore as gor dafa war a gore waaye ànd ak nit ki six mois yàggugul dara yàggul nga bàyyi ko am na ñoo xam ne président bu yëkkati téléphone seen téléphone woo leen sax duñ ko nangoo jël. ah moo tax tey te man li ma ci jaaxal ñi nga xam ne dañ doon tuumaal dañ leen a tuumaaloon ne du ñoo yëkkati woon alal di ko jox Ousmane Sonko ñoom rek a transmet muy galo ba mii ma leen ko leen ñemee rek ma xam ne amul xel parce que ñii fi président jaar ak ñoom li leen président defal lépp ñu mën ko xëy wan ko ginnaaw bu leen Ousmane Sonko ñemee ma xam ne Ousmane Sonko amul ay conseil baax parce que man su ma doon ñoom man ñu def ñi président ma teg sama bët suñ ma wutsee ma daw leen parce que du nit ñi ñoom sénégalais ñoo leen war a seppi tege nee parce que matuñu lu ñu doon man nag leen laay wax ñi leen topp muy ñi nga xam ne ay maire yi muy ku mel ne Mame Boye muy Galabo képp ku leen topp rek yow yaa ngi nax sa bopp parce que du nit ñu gëm dara ndax ñoom ñoo daan toog di saaga Ousmane sunk ak di ko wax lu ñaaw ak di ko traité façon lu nekk heure bu ñu xëyee suba ba ngoon toog seen yoon di tàgg président Macky Sall di ko wax lu nekk tey ñu mën ko wan ginnaaw ñooñu nañ leen bëri topp luñ continuer ci dynamique bi ñu nekkoon parce que ñii jëruñoo topp. est que seen dem ci Ousmane Sonko daf la bett. non dafa ma bett wax dëgg yàlla xaaruma ko woon fii man xaaroon naa ba Ousmane Sonko génn publiquement sax woo leen ne leen diwkat bëgg naa mu ñëw ñu bokk liggéey réew mi sax nga am looy lay waaye jëlub téléphone woo Jibi Gueye Ndiaye waaw Ousmane ne ko man fi tolli élection yi du ma ci bokk damaa neutre kii jël téléphone woo diw ne ko man Ousmane bokkuma ci élection yi damaa neutre toog ba mu yàgg jëlaat sa téléphone neel Ousmane nañu jël boog ñun bëgg ñëw ndax jàppale ko fii man maay maire nangam ak nangam dafa ruslu. noonu lañ ko defee. mais ñun ñëpp noonu lañ ko defee kenn koo xam ne tey def nañ ci benn gis nga Amadou Ba Pastef Thiès dégg nga li mu wax moo leen maire bu ñëw yaa ñëwal sa bopp waaye ñun yëkkatiwuñ suñu téléphone woo kenn nooy toogee waat sa kër jàkkaarlook sa njaboot nit day gore fi président Macky Sall jaar ak ñoom moo sori lii ñu ko war a dafa ñaaw te kum ci jig ma xam ne mbër nga te fii la nekk ñoom ñoom ñoom fii la nekk euh, euh, manifestation 2021 yi ñëw. ñoom ñëpp dañu daw làqu ci seen kër mel président Macky Sall moo jël yëf yi téye ko amee. mais ñu bëri nag ci APR liñ meree président Macky Sall bokk na ci ni mu doxalee bi election présidentielle bi jotee ñu bëri jàpp ne. Euh, xëy na moom sax tax. xam nga ba waaye fekk Ousmane xam nga loolu tout le nga xam nga loolu. moom weddi na gaa mais. xam nga loolu man tout le temps tout le temps dama koy wax le président Macky Sall ku ko xam xam ne moom nekkul ci yuy njaay nekkul jàppal fii génnal fii déedéet. ah mais épisode boobu. mais mais ma wax la xam nga.